tey nag ñu ngi fi pour vraiment manifester suñu soutien au président de la République son excellence Macky Sall euh, ci responsabilité bi mu jël pour vraiment garantir la stabilité du Sénégal euh, lolu mu woote nak muy dialogue ñu ngi ci wo l'ensemble des leaders de notre pays ñu xamné le Sénégal ñoko bok té kenn waru ko yàq donc nak li président woote képp ko xamante am nga abi ci mbir mi nga ñëw wax ko fofu su boobaa euh, ñu décision yi pour Sénégal C'est que euh, le président Donc, donc euh, mobilisation c'est en guise de manifestation de notre soutien à ce grand leader du Sénégal qui est Macky Sall à ce grand leader de l'Afrique qui est Macky Sall on est fiers de lui on est fiers d'appartenir à sa famille te encore une fois Nous sommes présents, ñu président waaye nag na xam ne daal option bi nga xam ne jël na ko ñun ñu nekk mouvance présidentielle dinañ ci ànd ak moom pour garantir la victoire di woo jeunesse bi ñu xoolaat bu baax mbir yi xam ne réew du caaxaan ku ne mënul yor réew réew dafa compliqué dafa métti gérer donc nag bu ñuy choisir kilifa bu war a nekk ci bopp réew mi dañu avons dañu critère critère, critères yu mat sëkk yo xamantene ñun ku nekk ci ñun bu dina nelaw parce que xamna né euh, on a un homme responsable à la tête du pays donc lolu rek nous woté vraiment à la jeunesse sénégalaise ñu dal xol yi euh, continuer de garantir stabilité Sénégal ak son développement euh, ñu xam nak prospérité bi pour ñu am ko stabilité bi ñu ci continuer